état comme que yàllaa ko may doole du toll nii yow léegi noo mën a expliquer mu am ay yenn anarchiste wala boog terroriste bu ñu waxee terroriste mooy kuy jëfandikoo la terreur pour arriver à ses fins maanaam nekk ci réew mi daal di tiitalaate di jaay doole moo xam nga teg ko ci mbubboo ko ci diine mbaa dangaa am mbooloo politique mbaa dangaa am xaalis léegi nooy wax ci état boo xam ne nit toog na ci mbooloo en public mu ne man de sama mbooloo mi ma toog hmm. yor naa fi armée boo xam ne hmm. bu ñu état songaatee hmm. dina gis lu mu gisul woon te nag am na fu ñu jote jaar ba ñu rey si ñoom nangam ci ay takk der ndax yow nit war na toog ci public wax loolu ñëpp di ko seetaan état ba ñu def benn réaction ca saasa nooy jàngatee loolu bu fekkee am na liñ ñu naan kumba am ndey ci sistis ak kumba amul ndey bu fekkee am na kumba am ndey mooy am loo xam ne bu ko wenn askan waxee yoon dafay jóg procureur jóg ñu teg leen ci yoon bu ko ñeneen waxee ñu bàyyi mu sedd wala sax duñu ko naan naanem ndox bu fekkee am na liñ naan injustice mhm. bu fekkee am na mhm. injustice mooy am ci réew mi ñoo xam ni bu ñu waxee lii kat des ko war a bàyyi mu sedd waaye bu ko ñi waxee nañu jóg ci ñoom mhm. naam sax ci kaw wax moom mënuñoo nangu ni état am na ku toll moom doole ndax doole yi ñëpp du tolloog dooley kenn wala doole doole yi ñenn état mooy doole yi ñëpp beneen ba ca des mooy am na ci loo xam ne liñ naan terroriste. Mhm. nekkul araab a koy def. wala ab naar. baa ab séeréer baa ab tubaab acte la. macha allah acte la yoo xam ne dañ ni act yi képp ku ko def. Mhm. ak foo mën a féete. Mhm. ak côté goo mën a féete. mën nañ laa toppee ay act yoo xam ni. da ngaa def acte teru terroriste. bu ñu demee nag di ko topp liñ naan ci état di ko saytu. di ko saytu ba dëggal ni acte yooyu kat léegi dëggu na booba lañ lay jàppe ab terroriste mais diiran ñu lay topp dañ lay jàppe acte yoo xam ni acte terroriste la waaye nag bu ñu demee ba ci réew nit sañ a taxaw menacer état dara du ko du ah, ko ci fekk en public mm-hmm. ñu ni déetawaay mu ni état bi am nañu faire fas ak moom doole joo xam ne bu ñu xam nga ko euh, duma ko rus a tudd Ousmane Sonko waxoon na ko fi. Hmm. bi mu ko waxee ñëpp dañu ni cell ñu naan waaw seeka que non waa waxin la. Hmm. te moo nekkat bu ñenn waxee lu gën a moyen seer loolu du ñu nangu ne waxin la. Hmm. fii la fi Ousmane Sonko xëy bis ni. waaw dinaa yóbbu réew mi ingouvernable. waaw wax na ko. ñëpp ni teg. mu ni dinaa rey njiitu réew mi wala mu rey ma. baa xam nga ni Mouhamad. dinaa rey njiitu réew mi. moo gën a sedd dinaa ko rey baa mu rey ma. ah kooku waaw boo xoolee ci baat bi. waaw ci waxin kooku ci waxin da ngaa décider ne ñun ñaar. faw kenn dana ci rey morom bi. donte ñaar yépp nekk baat yoo xam ni yoon da cee war a. jóg mais tëggeen wax ji rek. dinaa ko rey da ngaa décider. faw lii day am moom. Ah, ñaar rek mën a am waaw da nga cee. da nga cee dogu dinaa mhm. ko. wala rek dana ma ko. Mhm. kon bu waa ji gaawul da nga ko ko def. Mhm. ba ba des réew ingouvernable. il faut ñu wax nit ñi. waaw dëgg-dëgg lan mooy waxi Ousmane Sonko ni parce que quand un pays est ingouvernable. Mhm. cela veut dire que. Mhm. benn institution doxatul. dara luy nekkatul luy dox loolu mooy un pays ingouvernable xam nga lan mooy réew ingouvernable pour ñi bëgg a dégg ci baatu wolof mm-hmm. oto buy daw vitesse nga fexe ba ba chauffeur ba waaw yëkkati ko ca kaw direction ba waaw te dindiwul vitesse ya oto ba ngay konnee daw loolu lay réew moo xam ne mooy réewum ingouvernable mooy réew mu kenn yilifatul wallaay kenn dootu wax kenn dara. Mm-hmm. lu waaye neex def loolu nag mooy ah anarchie donte léegi. Mm-hmm. commencé na am nag. yemu ca mu ni bu ñu ko demee ba koy def nañu ko def comme Samuel Doe. lan lañ jëfoon Samuel Doe. moo moom moo jar a waxtaane Samuel Doe damay dégg ñuy wax turam loolu moom mën na ci leeral. waaw njiit la woon ca réewum Libéria. ba ñu demee ba lenn ca askan wa ndax toujours aw askan wu la mu mësuñoo jóg cib dëkk. Mhm. lenn ca partisan ya nga xam ni ñoo ko mere. Mhm. ñoo àndandoo fexe ba génnee ko ca palais ba. Mhm. ray ko daggate ko. exposé ko am na am na sax ñu àgg ci des koo mujj lakk. la hawla loolu nag la benn. ku ñuy wax Ousmane Sonko ni woon. Hmm. dañ koy def Macky Sall la jamono bu ñu ko jekkoo. Ah. loolu muy loo xam ne lu garaaw la en public ñëpp di dégg. ñëpp ñëpp di dégg. Hmm. moo tax gis naa aw nit wuy mettit lu ni. Hmm. dafa am ñu ni dañuy rey Ousmane Sonko. waaw ñu ni loolu dalee na naqare. ma ni waaw lan ma waral Ousmane Sonko mi nga xam ni moo yor mbooloo moom. taxaw ni damay rey njiitu réew mi. waaw te magistrat yi nañu wàcc. ci seen kaw la ñu jëm. que la police mette derrière chaque un un policier. da koo gën a confirmer feneen dafa dem ci benn mitinu parti politique. Mhm. mu amoon fii ci stade bi ñuy wax stade euh, Amadou Bari. waaw Guédiawaye Amadou Bari waaw mu taxaw fa jël discours ni. waaw xale yii ma gis. Mhm. dañoo na ba taxaw. Mhm. ku leen jox daa daañu dem pale génnee Macky Sall. te police du leen téye. gendarmerie du leen téye. militaire du leen téye. lan loo loolu nag boo xoolee witees woowu. Mhm. moo commencé dox nag. Mhm. yooyu nga mu doon expliquer sànq yëpp ci ay chefs religieux. Ah. yuy taxaw di wax langage boobu. looloo leen may fit daal naam doon nañu wax yeneen i langage mais langage yi ñu àgg léegi dafa xaw a doy waar lool. Mhm. ndax kat réew bu ñu demee ba nga ni. bu ñu ma ñëwee ci sama kaw. Mhm. te kenn xamul ban sens la nit toog. Mhm. solo ba jekk. waaw laal parfum. Mhm. di déglu kii mu yaakaar. ban sens la état am pour attaquer ko. vraiment loolu xel da ko mën a nangu sax. franchement. ak loolu lu tax amul dara dara dara mm-hmm. lu ko mën a misaal amul mm-hmm. kon nag yooyu yëpp li koy waral buñ ko xoolee mm-hmm. phénomène bi naam maa ngi fi woon mais li ko yee ma ngi commencé deux mille vingt et un bi nag da cee defee tuuti liñ ñaan nay nay fite liñ ñaan tamit euh, ak yaafus ak ak dëgg la mooy état dafa war a taxaw amul ci menn réew maa ngi fàttaliku fan yee ci gannaaw mat na lu mat un mois et quelque am na ko defoon menace de mort ci Joe Biden waaw aux États-Unis mais kenn waxatu ko moom fekk. ndax kenn du kenn du wax ni damay. rey njiitu réew perquisition këram rey ko këram lañ ko fekk. effectivement loolu nag bu amee nag. Mhm. commencé sunu réew mi aw nit wax ko. Mhm. naam am na jéego yu ñu ci commencé def état bañ commencé doxal. Mhm. mais am na ñu ni ci bitti ñoo xam ne ci biir lañ war a nekk. ndax ma am nay fee yu ñu def yoo xam ni mbooleem lu fi yàqu ci réew mi seen loxoo nga ca biir mbooleem bakkan yii fi di quarante et quelques personnes seen loxo nga ca biir mboolem bee public yi ñu yàq seeni loxoo nga ci biir loolu nag bépp sëriñ buy wax ci loolu nga war a wax ni yàlla nee na wa man xatala nafsan bi xayri nafsin fakka annama xatala nasa jamian waaye it wa man ahyaa ku jóg dëgg pour protéger bakkan yi bañ a rot fakka annama ahyaa nasa jamian yàlla nee képp ku taxaw ngir benn bakkan rot mhm. dafa mel ni aalam bi yëpp nga boole rey dëgg la waaye ki def faire face ak yow mi nar a def caay-caay googule mhm, mhm. ba benn bakkan rotul wala sax am na yu rot waaye am na yu mucc mu ni kooku dafa dafa mel ni moom moo dundal àdduna bi yëpp macha te dañu la képp ko révolté woo nit ñi ba nit ñi dee dee dee ci bakkan yëpp des koy gàll ci saw ndodd loolu mooy li leer moom mooy li wér voilà euh, Oustaz Mouhamed la bayka duma ma génn foofu dañuy wax ci wàllu tëralinu état. Mhm. dañuy wax ne le procureur et l' avocat de la société. Mhm. man ak yow ñu ñaan ñi mhm. amuñu mbooloo kenn toppuñu ginnaaw yàlla moom moo ñuy aaral boppam. léegi nit koo xam ne dafa am mbooloo mën a toog di menacer état mbaa di wax loo xam ne waxuwul te su ay nit ñu baax jóge ngir jéem a ŋàññi la muy def ñoom ña koy def. maanaam moom am na doole bu toll ni mën a ñëw dal seen kaw waaye léegi état bi ñu ñàkk protégé ndax ñun kon ñu gis ñu ngi en sécurité ñun état boo xam ne maanaam day gis ñoo xam ne mën nañoo xañ citoyen yi jàmm moom jëlul matuwaayam ngir may citoyen yi sécurité loolu moom lan nga ciy wax exemple bi ci gën a gaaw mooy wax yi ñu ci wax rek ñun du ñàkk boo demee ba toog nit wala ni la waroo ci nu waxe noonu mm. nangam sanga waaw ki wax wax ji nag moom yow loo wax dara kooku kenn du ko wax dara. mooy dem nga ba réew bu amee koo xam ni mën naa wax lu ko mën a yëngal ndax toujours jàppal ni. dëgg la wax ji ngay wax. waaw bul wala ci keneen fekk see ku am mbooloo. waaw mën naa jur leneen. macha allah beneen ba ci des mooy lan moo war taxawaayu état. Mhm. mooy man ak yow mi nga xam ne amuñu mbooloo. Mhm. ndax léegi mbooloo ci lislaam dafay àgg ak nit foo xam ni. Mm-hmm. moo lay aar wala mm-hmm. moo lay protéger wala moo nekk sab kakagul masalan. Mm-hmm. ba lépp loo mën a wax. ak lu mën a doon it. dara du la ca fekk wala bu la ca dara fekkeet par rapport daan yi ñu teg ci sama kaw man mi nga xam ni aw ma aw ma mbooloo. du bokk ak daan yee ñu koy teg ndax dama seetlu leen ci réew mi. amul kenn ku siiw wala ngay ab sëriñ. baa ngay homme politique. ku am tur daal ku am tur ñu àtte la nga tëdd sa pen ba pen ba jeex gisuma ko. liberté provisoire daal boo fay jaar. liberté provisoire nag bu Sénégal moom. moo mook noo lieu total la yem. ah waaw amul dara boo ko amee daal moom. mook noo lieu total ñoo yem. Mhm. moom ñoom amul werante buñ la xasee may liberté provisoire. Mhm. jeex na mu ah man de gisuma ko. Mhm. liberté provisoire attewaat nañ la woo woowaat nañ la condamné nañ la moo xam dañ laa tëj. moo xam dañ laa setal daanaka moom sax est-ce que sax gënta wóor noo lieu total far. <laughs> naam sax moom. loolu dafa bokk ci doxalinu yoon. waaw ñàkkul ba yaa ngi fàttaliku waa ji fi doon jaay or ba moom mayoon nañ ko loolu. waaye ginnaaw ba ka mu joteel moo ñëw senegal wane moom ñàkk kontaanam. Mm. ci la ñëwaat après ñu delloo ko ba mu mujjee fay donc loolu moom liberté provisoire lu bokk ci siis la xëy na kay ni nga ko waxee rek li xaw a jaaxal askan wi te sax euh, Mouhamed. man dama gis ne Sénégal. wallahi dañoo am siis bu bu bu clément. maanaam siis bu am ñu parce que boo seetloo ñii ngaa ñu justice ñëpp. Mm. pour pourquoi duñu wax li maanaam justice da ngay gis ne moom daanaka ku mu téye moom moo lay utal ay yoon ngir bàyyi léegi ñoom ñi ngaañi si ñoom fan lañ ko teg ñoom maanaam justice bi kay dañoo wax sax yërmande dafa ëpp maanaam li ñu seetlu mooy dafa am yërmande ba mu ëpp loolu mooy li nekk ñoo ñii ngaa ñi justice teguñu ko lu dul ci seen bakkan mhm. justice ñi mu fi jàpp fan yi ñuy wax wala lu ko lu ko weesu mhm. il faut ñu xam ñan ñoo taal université dëgg la ñooñu la procureur jàpp mhm. ñu dem ba jàpp leen wala ñu jàpp ni ñoo ko taal. waaw boo nee ñu jëriñoo atte kon yow ban xaar nga kon il faut ñu xam yow ban nit nga. ah maanaam ñooñu daal bu ñu dem procès nañ leen nañ leen nañ leen bàyyi noonu. Ah. sans procès am lool la loolu la foog. Mhm. beneen ba ca des mooy boo nee wóorugul xamuñu ndax ñoo ko defam déet ñuy la kon yow mi wax loolu wan ñu ñu ko def. dëgg la comme yoonay enquête. Mhm. moom mooy wuti nit teg ko. waaw teg ay fee. def inculpation ci kawam. ni kii lii lañ koy toppee. Mhm. yoon dana la may sansu nga layal sa bopp. Mhm. teer bii ñu taal. waaw xanaa duñu ñu ni ay jinne ko taal. déedéet mu BRT bi nag. waaw fak nag. Euh, bis ba biis tata ba. lu ko jiitu mooy total yi nag. waaw station total yi. ah Auchan yi nag. waaw mais léegi ñi leen taal ndax dañ dañ leen war ne dañ leen a jaay doole buñ leen jàppee wala dañ leen a jaay doole. mu xamal foofu sax damay dégg ñenn naan détenu politique. maanaam le mot détenu politique ban rapport la am ak ku jóg dem taal ay biens publics taal ay yëfu jàmbur maanaam def lu ñu gis léegi loolu ak politique moom où est la politique dans manees na ko nangu doonte du dëgg waaye manees manees naa xam ni tamit du dëgg. ci naka. Mhm. ay détenu politique lañ naam waaye waxuñu dëgg duñu ay détenu politique. Ah. waaw leeral mooy. dañuy yàq comme ni sénégalais lambda bi yàqe mais dañoo nekk ku yëngu ci parti politique. ah kon daal léegi su ma la déggee jëm mi nga yëgal ci parti politique dalay may impunité yow buñ la jàppee ñu ne détenu politique. waaw mais xam nga moo détenu politique mooy. Ah. kuy wax li nga yaakaar ci réew mi. Mhm. ak li nga xalaat. Mhm. ak li nga jàpp ni doxul. ñu jàpp ak li nga jàpp ni baaxul loolooy détenu politique. Ah. ñoom nag baat boobu la ñu jëfandikoo pour muure ko seeni gars yi def ak looxóor mhm. waaw ay détenu politique lañ koy ndax dañoo bokk ci parti ah. waaye jëfi vandalisme la ñu def. jëfi terroriste. jëf joo xam ne raye ci dagan ci li lislaam wax la ko nag tey. ah macha waxuma ay pen ay dix ans ay vingt ans rey laa wax. dëgg la maa ngi lay dégg Oustaz. yàlla nee na ab kat des koy rey. dëgg la al mufsid des koy rey. dëgg la ku yàq des koy rey. bu mhm. fekkoon ci lislaam bi ñuy wax naan gëm yàlla ak ragal yàlla. Mhm. bu amoon dañ ñaan yow am. amul nag dara dul tax nit ki mën a jóg am lu la naqare tax nga yàq amul mm-hmm, mm-hmm. foo fekk ab yàqkat mm-hmm. de gaspionnage des ko war a war a rey kon ñoom nag justice bi ñuy ŋàññi naam am na lu ci cooxe mais li sa sooxe mooy wayaf loxo gi justice wayaf loxo ah. laa biir gi mu laa biir ci malfaiteurs yi ah. ak saay saay euh, saay saay sii ci réew mi loolu mooy liñ naan injustice dëgg la loolu mooy masalan masalan am na lu ma dikkal mooy ku mel ni Samba Ka ñu naan ko sàmbarang mhm. dañ ko jàpp guddi mu doon daj benn boutique mhm. nee na jël na fa lu jege quatre-vingt mille francs mhm. moo ne siis sisan ko atte daan ko quatre ans hmm? waaw waaw waaw léegi sàmbaka moom ndax siis siis da koo jaay doole wala jaayu ko doole jaayu ko doole waaw sàmbaka mu dem jël quatre vingt francs yoo xam ne rayul deful dara dafa dajji jël naam nag jëfi caay-caay la def yoon da ko war a àtte waaw gaa yi dem nag taal ay biis ba ay bakkan faatu ca mm-hmm. te am ab commanditaire boo xam ni moo ni mm-hmm. jóg leen mm-hmm. combat mortel résistance rapport de force amul taxaw kuy jàpp na nga ñëw jàpp ma maa ko santaan waaw kooku kon na lañ ko war a def waaw moom ci boppam waaw moom ci boppam bu ñu àttee ñu tëj leen giiru dund moom la lañ ko war a àtte waaye nag am na ñuy jóg pour mhm. gàllankoor état wala mhm. atte mhm. pour yoon bañ a doxal liggéeyam loolu nag maa la koy wax tey ndax Sénégal dafa am ñoo xam ni loolu leen ñor ci biir mbir yi Oustaz